يا خير ديف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوّر فؤادي ولسرح صدري واجعل جهادي كيوم بدري بوكي جلدي taalibe murit yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy ci jotli ay kàddu di lu tuuti lu ñu nar a tànqe fu bari te lañu ci xamakus néew ñu fës ko yéene waxtaane ak bokk yi ci kemtalaayul lañu ci xam ak la ci suñu xel jàpp te lépp nag di loo xam ne lii lu rafet la ci ki ñu koy waxtaane donte xam ko ci lu bari yombul ndax nitu yàlla moo demee noonu yàlla dogal na 1963 lañ dugg ci ay loxoom muy at mi ñu jullee màgg euh, jumaay Tuubaa ji bi ñu koy ubbi bi ñu ko ubbee rek ci weer woowu la yàlla dogal ñu yóbbu ñu fa euh, ci ndigalul seex Mamadul Fadil jaar ci loxob seex Mamadul Basir ibnu Xaadimu Rasuul ñu teg ñu ci loxoom yàlla dogal na euh, jamono yooyu fekk nañ fa ay bokk yoo xam ne ñii ñoo ñu féete ak mag am ci ñooñu it ñun ñoo leen féete mag tuuti waaye bari na fa ñoo xam ne ca ñañu fa nekkandool ci ñu féete mag ci njabootu sëriñ Touba gi la ndax yàlla daf koo jagleeloon ay bokkam yépp walbatiku mu wutu leen ci jàng ak jàngale ak yar ndaw ñi mu féete leen ci nag nangul leen ko loolit ba kenn ku ci nekk sa njaboot ci moom rek nga xemmeem ngir yóbbu ko fa muy góor muy jigéen ñoom itam ñu nanguloon ko liggéey boobu xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom ni mu ko waree ni la la ware waaye féetewoo gi mu ko féetewoo te suñu borom jagleel ko ko ci barkeb sëriñ bi looloo tax nag mu féetewoo ko itam nekkoon ci jamono bu metti loola euh, taxawoon na ca taxawaay boo xam ne nitu yàlla dëgg moo ko man ndax ku ne xam ne ne sëriñ Touba njabootam yàlla daf ko cee jagleel loo xam ne doo ko fekk feneen loolu nag jagleel la goo xam ne ñoom ñi mu jaboote it xam nañ ko ci seen biir ba kenn ku ci nekk cër ba la suñ borom jagleel ña ca des ñëpp it dañ la koy nangul moom nag yàlla jagleeloon ko mbirum alquran ak yar ndaw ñi loolu nag mu féetewoo ko féetewoo koo xam ne ci jamono yam koy féetewoo lu dul yàlla nekku ca yàlla kese la ndax booba jamono metti na te li ci gën a yéeme xam gum xam liggéey boobu te nangu ko xam ne jagleel guñ ko jagleel la mu féete ci sëriñ Touba féete ci njabootam gépp loolu taxoon na mboolem la ca doon coono yi muy jànkoonteel moom day woyof ci moom toy yi doo ko xool ba xam ko ci moom doo ko jisit mu niru ku ci am benn jafe-jafe la ca gën a yéeme it ku ne xam na ne jamono jooja euh, lu bare bari jafe woon na waaye mosula bëgg sax kenn ci ñi fa nekk way juram di fa indi dara ci loo xam ne day niru ku koy jàppale moom lépp da ko yenul boppam bu ndaw li xasee dugg loxoom dafay bëgg a féetewoo léppam te du bëgg kenn ku ko ca jàppale ku ci di moo lay faj ku ci lekk moo la koy jox ku ci naan moo la koy jox ba ci xotti ay yére du bëgg sax sa wayjur defal la ko loolu lépp moom moo ko warlu boole koo git njàng mi ñor ko lool li ci gën a yéeme itam njàng moo xam ne du la bayloo du la yalwaanloo du la def loo lenn luñ miin ci yeneen daara yi lu dul njàng mi kese la am soxla ci yow mu waroo lool it nag ak daara yeneen yi nu ñu daan jàngale ndax léeg-léeg sax daa nga gis kuñ fa indi ci ay atam xaw a kawe fekk jaar na ci yeneen daara waaye moom donte wàcce nga alxuraan ci yeneen daara itam boo agsee ndege moom yaa ngi door a dugg ci daaraam faaw moom li muy bëgg rek mooy tàmbalewaat la ci suuf ngir boo xool ba xam njàng mi noo doon jànge ndax moom dafa jàpp ne njàngam waroon ak njàng yu bari te noona it la amee ba tax na ku ñëw boo ko ne eh, barab sàngam laa tolloon wala nàngam it koo xam ne dafa jaaroon ci yeneen daara doon magum jëmm sax door faa ñëw eh, maa ngi fàttaliku kilifa goo xam ne eh, ba fa ñëw dafa ñëw xaw a doon mag aslëf te fekk na itam mu jaaroon ci ay daara ba ñëwee nag sëriñ bi wax ko ne ko daal li ngay tàmbalee mooy demal jukki isi bu xamayata ak sàbbi xisma nga ñëw jàng ko ba tari ko bu ko defee ñu door a xam li ciy tege boobu mi ngi jubloo gëstu ba xam ban façon njàngin la doon jàng ak ak nu mu doon jànge nga xam ne kilifa googu ba mu génnee daf doon xaw xul di wax ne ah, man lii gone yu ndaw yi ma fi fekk sax ñu ci bari weesu nañ fii ba noppi ñu di ma ko jàngaloo waaye moom booba li yeneen daara yi daan wax naan euh, wàcc naa ñaari yoon ak man wàcc naa ñetti yoon ak yooyu sa bokk ci méthode am moom li mu daan bëgg kiy jàng euh, li ëpp ci nun booba ku ci agsi isi bi la xad radiyallahu fi ngay tàmbalee jël sumun ñi nga xam ne it seenum xel may na leen ko bala ñu fa agsi tàmbali jël sumun Amne ñoo dana danañ weesu fofu door jël sumun waye ñi ci ëpp dal juroom ñentelu isib bi ci lañ daan tàmbalee jël sumun waye nak da ngay tari nafar di ci bolé nga xam lim jublu moy sa yo wàccee mokal gi dutu jafe waaw lool la waaye bokkut ak daara yi nga xam nak dañuy jël bind rek di dem te duñ tari nafar ñoo buñu ñu moy ñi nga xam ne dañuy ko ci kaw euh, duñ mëna jël sax ñaari isib wala ñatt dañuy wat jël ay robot di jël nisif ba bañuy waccat bu ko defé nga dégg ñu naan di wacc na ñaar yoon di wacc na ñetti yoon mom lolu mosuma hmm. koo dégg ci programme hmm. ñaari ku fa wacc hmm. lo ca rek man di tari nafar juroom isi bi man ka koy tari waa boo ca bo démé jangi wat bo ñëw it dana dana yomb ci yow non la koy topé euh lolu nak nekkon lo ne li ci gëna yéme euh nga xam ñi jàngalé alcorane ñu bari war nañ koy bayyi xel ndax euh, jàng alquran jàngale ko it dafa metti nit mën naa jàng sax bu wér ñu xam ne mën naa eh, jàngale eh, te du mën a am it yi wayu toog jàngale loolu it day am waaye moom yooyu yëpp da ko matale woon loo xam ne ni nit bu koy def da yëg ne mi ngi ci am bànneex bokkul ak ki nga xam ne dafay séentu lum ciy am wala ñu di ko ci forcé moom yàlla dogal na loolu mënees na ko roye ci moom li ci gën a yéeme it mooy fexe ba ndaw li muy jàngal du ko ragal nga xam ne moom waxtu jàngale bu jotee itam li ko ci war lépp dana ko def te jim ko war a jox yëpp dana ko ko jox ba nga xam ne jox jox na ko ko waaye bis boo taree sa àlluwa mën na laa xëcc di kaf ak yow di la ñemeloo boppam di waxtaan ak yow ci yu baree bari ba da koy daal di ñeme mm. eh, loolu uh, lim ciy jublu mooy nga baña ragal alquran ndax bari na ñoo xamne tay tey ak sëñ daara ba leen doon jangal wala ñukoy fatali ko buñ ko gisee seenu fit day dem fekk na fitna xalé dang ko fitnal ci jang ba nga xamne man na ci ay sax far ni mu warona soppe alquran duutu ko ni soppe fekk na fitna jagn ko ca tegoon moko ko yóbbe man mm. nga gis sax ko xamne jangona alquran ba mokal ko waye fi ni teye téye ji ba du recc ci mom lu jafé la waaw lolu nak euh, fexé mom nak daf doon taxaw ci lolu yit ba nga xamné euh, nit ki dal du ragal njàng mi deug deug ndax dula ci tek yenn fitna yi euh, te ñëmé lolu bopam ci wal yépp benen bi ci gënoon yéme yit yor ay ndaw yo xamné li lay xamal né ñom doomi Serigne Touba yemuñu kenn ay domam ne ci biir kër gi ñu bokk fi nekk ak ñoom te amul kenn koo ci xam ne eh, daf koy jox cër boo xam ne joxu ko ñi ci des ak waaw amul boo xam ne daal dañ naan kii li muy doom yi sëñ bee tax ñu def ko nii mbaa mu mel nii loolu dawu ko ci séparé amul kenn koo xam ne mën ngaa taxaw ne eh, bis ba mu waneeg fonkeel doomam te wanuma ko waaw booy xool sax da jàpp ne ñeneen ñi la gën a fonk ci ñoom te teewul eh, yar boobu ni mu koy defé ci ñeneen ñi la koy defé ci doomam yi hmm. waaw fi fi ñeneen ñi rek fofu la leen di bëgg a jaarale hmm. waaw ndax amu ci ñenn ñoo xam dañ leen di laq fi barab di leen defalul lañ defal ña ca dess hmm. yalla mayoon ko it euh, taxaway bo xam euh, ci jamono bobu day biir kër gi daanañ ko tej tëjin wo xam euh, da nga yëg ne kii lii rek ko itteel ndax ñim fi bokkal nek sax yow dalay jaaxal li euh, li ñuy dunde ak li li ñuy toppatoo ñi fi nekk fu muy war a jóge ndax waroon ak jamono ji ndax xam ngeen ne jamono ji euh, fu fi sëtu Sëriñ Tuubaa nekk sax waxtu wu nekk ay nit a nga fay ñëw ak ay daayira ji di ñëw di ko siyaare di ko di fa joxe dara ak yooyu yëpp waaye foo xam ne daa nga fa toog lu yàgg a yàgg te doo gis sax ñoo xam ne dañ naan ñooy ñëw di siyaare si walla ñoo fi indi daayira sàngam moom it day mel ne sax ñu mel noonu sawaru ci waaw ndax li tax sawaru ci day bañ ñu gàllankoor ko ci li muy def waaw loolu mas na ma fàttaliku day dégg bis mu wax ndax jamono yooyu daf ma daan wax boo teelatee tari sa àlluwa rek na ngay ñëw fii ci sama wet bu ma amee lu may yónnee may yónnee la ko ba ba fàttali jot waaye mas na dégg bis bëkk néeg bu mag bi ñëw am kum gan ñu doon nuyoole ni ko ñom day xaw nañ fay yag ndax ña nga ca mbar ma dal di taaxarlu ba léegi ta boba xamna naa ñu julli ge mu dal ne ko fekk booba wax na ma ne ma jot lima satala gi ma japp ma jox ko satala gi mu tok ci basangu rombu jaan di japp bi mu àggalee mu ne ko kuma ma itti wo day liñuma ma fekk ma ne ci bañ wo ma dañ may muñal bama nopi noppi ca loola waaye dara munta tax may bayyi nak li nga xamne mo moy sama wartif ma war ko def di dag ngir lenen mu daal ne ko mo tax it bu ma sañoon ku ma aajowoo ku ne doo ma ak sen soxla da ngay ndax boo ma ak sa jenn itte jo wara doxi rek hmm. da nga amuk yakamti ci gis ma te du fekk nga man ma dal di gis kon nak buma sañon sañoon ku ma ku nek hmm. da ngay dem so doxé say ité ba dooma ak jenn ité waaw ndax mom néna li nga ko fekkon mu diko def hmm. diwa lay rek hmm. wala diwala soxla wala lenen du tax mu bayiko ta lolu nopi wut mom programme am la yoron bo xamné ne eh, ku yar ku ne it wala nga am lo jëlé ci mom faaw nga dundu programme ku lool sax da ko nosoon lool machine wo xamne ku ko xam rek danaka man nga xam yow waxtu wi jar na nga jog di jema gis wala jeruko mm-hmm. ndax mom lim wara def ci jaamu yalla mak ak liggey bi mu war def ci daara jek yoy yep li ci gëna a yit nekkul won nit ko xamne mm-hmm. dafa négligé dal waaw xam nga dañuy wax ne nit mm-hmm. surtout kilifa war nay bari rawati na lu ñewagut waaw maanaam waxtu wu ne daana bàyyi sax ba ñuy tëdd booba noonu ay baraagi bordage si seng yu mag lañu defal day dana ñëw sa xaaji guddi taal lamp bi di néet di xool ba xam tëdd nañoo nuñ tëddeeg yooyu yëpp da koy xool bu fekkee ku tëdd ci bitti te dañ fàtte koo yee wala yooyu sax moo koy yee wommatal ko boppam ba dugal ko ci néeg bi yërmande ju yéeme yéeme la amoon ci ñëpp Euh, yàlla dogal nag euh, mu xàmmee itam ndax ñi daan bokk ak bokk la daan boole ñenn ñoo ne daal ña war a ànd li mbooloom mi bari bari ñooña lay boole fu ñu fu ñuy nekk waaw ndax ñi sëriñ bi juróon seen way juru góor wala mu jur seen way juru jigéen ñooñ ñu ci bari dañ ñoo daan bokk fu ñuy tëdd ñam wi bu lekk jotee ñoo wi bokk lekk gi wane ni ñii ñoom ñoo bokk lépp waaw daal ne nit la woon koo xam ne formation bi muy def mhm. yaakaar naa kum ko def ku nekk mhm. da nga xam sa bopp mhm. da nga xam fooy teg sa tànk te dana am loo xam ne boo gisoon mbooloo di ca sóobu it yow waru caa bokk sa xel sax waru koo nangu ndax lu bare bari boo ko xalaatee rek euh, da nga da nga da nga da nga am loo jëlee ci moom waaw nekkul woon koo xam ne kii daal Euh, kuy fitnal kenn la hmm. waye nekkon na ko xamne ki day ñemeloo bopam nit ki ba nga war mëna mën jariñu ci mom hmm. tarbiya wa talim mom yar bobu hmm. daana dem bay wax ne ndaw li su koo rek muy tok loxay kese mana tok ni rek defo dar masalan lu melni bisu al khamis bu masaan ñew mu rombu la ni rek nga xamne tay jango wané ne am nga tuti nga dugg ci lenen danaan a ah, tok loxoy kese day jog di for ci xobi garab yi rot fi suuf sax di dajale moo gën tok loxoy kese waaw nee nit wër ta tok rek loxoy kese te nekkul ci dara waaw xamni koku dalay téla xamal kon war nga am responsabilité ci yu bare bari eh, lolu mom dalay jangalale lu bari yar bobu nak mo ci ëpp solo ci lim daan def eh, ñaare eh, amna yo xamne bu ci wax ak yow ñaar yon wala ñett rek da nga daldi xam lu bari ci da nga dem ba nek magum jëm sax euh, am yenn qualité yoy def yo xamne euh, bu ko nit ñi doon yéem wala dara sax yow da nga xam fi nga ko jëlé ba pare yow ci sa bopp it dana am lo remarqué né li du say pexé du sa ngóora du sa lenn waye dafa am foko Wow, waaw dem na ba ci euh, ñi ci bari sama classe gi li tax seeni tank du bari fu muy genn lolu mom non la meron manam mom musta kuy kuy dox fu ne nga dugg fa wala kuy def ay voyage ay lu nekk euh, loolu moom euh, gën bëgg ko woon noonu waaw ndax boo xoolee euh, ku teel a toog la moom daana tukki ci jamono yi ko jiitu ci lu fekkewul waaye bi toog jotee ba mu toog ñëpp xam nañ ne toog na te booba toog yombut ndax booba toog yombut ndax jamono bi metti na waaye toog fi benn barab te booba Touba it melut nii wëlbatiku nga yor ñoo xam ne mbooloo lañu te lépp yaa leen ko war a defal te xaaroo ci kenn moom kenn ñëpp xam nañ ko ba kenn mus sa xalaat di jéem naan lii sax nañ ko fopp ngir dimbalee ji ko ci sëñ bi ngir sama doom jafa nekk mbaa nangam mbaa nangam doom ti bokki boppam lañ waaw taxawaayam euh, taxoon na ñëpp xam ne wax dëgg yàlla cër bi mu war a taxawee ci seen wet lépp féete woon ko fofu nak man lima fi jangate moy ginnaaw bu suñ borom cëralee suñ serigne Touba alquran te doomi serigne Touba yi kenn ku ci nek amna jagle bi beral ba kenn fekkul ci ku ci ne it ñoom boo gisee ñu wegante won joxante won cër kenn ku ci nek bo daan gis sa morom rek serigne Touba rek nga ci xol nga yegg ne itam. kii kat buñ bokkee sëriñ Touba it am na cër bu mu yor ci Serigne Touba boo xam ne moom la ko ci jagleel keneen fekk ko ci nga di ko dabu ci moom mu ngoog moom nag yàlla dogal na fi mu ci féete dafa dafa yéeme ndax yàlla moo ko cërale loolu muy alquran dem na ba feeñ ci ni ko suñ boroom feeñale ci saxur ramadan mu génn àdduna ci biir saxur ramadan saxur ramadan allazi unsila fi alquran kon loolu moom léppam génnul alxuraan waaw kooku nag euh, taxawaayam wane na ko ba mat sëkk euh, ñu bari ginnaaw bi mu làqoo ci biir weeru koor bi ci lañ xam ne nag euh, sëriñ sooy bu kon jagleek alxuraan la ko suñ boroom defal ba moo waral mu feeñ ci saxaru ramadaan bi làqu ci saxaru ramadaan bi kon nag li ñuy mën a xamle foofu rek mooy moom daal ci ñim bok moy ñi borom bi subhanahu wa taala di wax ne innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur kon mom li serigne touba diglé won ne dee len jang tay jangalé di liggéey tay jaamu yalla mom gennu ci ben na na liggéey na nangoon naa jaamu yàlla ndax liggéey bi itam amoon nay daara di bay yóbbu fa ñoo xam ne ay dongay tërbiya lañ te teewul li muy sant donga yi muy jàngal ci biir kër gi la sant ñooña mooy jàng ba xam seen diine te di ko joxe te bañ a jiital liggéey ba ca jaamu yàlla ga nga xam ne wax na leen ne liggéey bu ngeen mën di def bu waxtu julli yu jotee bàyyi leen ko fa te dem joxe ci seen farata lay jóge ci liggéey booba buñ ko indilee itam lam ciy dimbalee jaamu yàlla yi du bëgg sax kenn yëg ko am na ci ñun sax xaaju guddi la leen fa daan yónnee nga xam ne duñ bëgg sax kenn yëg ne sëriñ bi yónnee na fi di leen dimbali mujj na ci ay atam yu mujj bi mu demee ba jëm ci màgget mujj na ñu bari teg nañ ci bët ay nit danañ yor wërsëg gu bari ñëw bëgg koo teg bët ba jox ko seen addiya te du tax moom mu bàyyi lam jàppoon waaw te dana yëg ne ñée ngi fi te ñooñu it moom faale wut seenug yàkkamti ak seen ittee àdduna yuñ bàyyi gannaaw ndax moom li mu war a def dana ko def ba noppi moom du sensé ci programme am dara waaye ñooñu it danañ yëg ne kii moom teg ko bëta leen gën lu nekk mm. te xam nañ ne li liñ fi indi itam du neen mukk te da leen di yokk mm. waaw ndax lolu mom da ci wane exemple yu bare bare bare bare waaw ndax mom ku ne xam na ne taxawayam dafa dafa yeme euh, fim ne tolloon na jamono bo xamne ne ni mako ko waxee léegi biir kër gi man nga fe yag lol ta do xam lu xew ci biti tax bobu ma ngi fatlikou ñaari kees yo xamne ne dox nañ digganteeg fi donga yi nek yo xamne yi day ciabi xomb yiñ koy tejje xomb yi ay chiffre la am ay numéro booba ku ñuy wax bëkk néeg bi sëñ Ahmadou Jong moom rek moo xam code yi code yi ubbi xomb yooyu bu kilifa ñëwee eh, ku mel ni sëriñ Abdoul Ahad wala sëriñ Saalih wala sëriñ Abdoul Xaadir wala ku mën a doon bu ñëwee bu ko yëg bu fekkee yëg na ni mi ngi ñëw danaan ko bu bu chauffeur bi accès rek dawalkat bi daal bu accès rek na na sab bu baax na sab bañ dégg sab bi mooy klaxon bi mu ne na corne bu baax bañ dégg ko daal mu ne ko bu sabee rek bu sabalee euh, daamar ji rek dana danañ ko ubbil waaye lu kilifa mage mage it léeg-léeg nga taxaw fa ab diir nag ñu door a ñëw ndax waaw waaw kenn koy tijji te du gaawe noonu waaye daal euh, mbir mu yéeme la moo xam ne euh, ku fay door a ñëw ku nekk it nag dana la may ci boppam di léeg-léeg sax muy bokk ak yow lekk ak yooyu ak di la nàmpatal ci bopam pour pour bëgg nga gaaw miss li ñu wax miss <laughs> waaw boo bu ko defee nga gaaw min dara ji waaw waaw waaw waaw daana la minal bopam ci nonu euh, ba nga gëna ñëmé dalal sa xel ba sa xel dal euh, te xam nga euh, nit ki mom loko mëna defal bo fexee ba xam bopam rek defal nga ko lepp dañuy wax ne tumuranke gi gëna reuy moy nit ku umpule bopam nit bu umpulee boppam rek ak tumuraanke dugg na ko waaye buñ la xamalee sa bopp rek loola doy na lépp waaw bu ko defee nag lu am na ci foo xam ne buñ fa àggee yow moom lu des ci yow la dese waaye desatul moo tax formation mu ëpp solo rawatina nag ci doomi kilifa yi ku ci amul formation rek dafa mel ne yow sa dund niil na waaw ñoom nag formation boobu lañ daan jiital ba lu mën a doon da nga ko danga xam foo koy teg ndax àdduna ci boppam nu mën a dikke yow da nga mën a jaamaarloog moom waaw te dara du la ci jaaxal waaw ndax eh, fii mu nekk nii mooy li ma leen doon junj keroog eh, bari na ndaw ñoo xam ne fii mu ne ci jamono bi daanaka boo doon wax ak ñoom sax boo waxee yeexee ma ne la yaa leen tooñ ndax xamuñ li xew <laughs> waaw ndax fi ñu fekk jamono japp nañ ne seen jamono war naa gën a neex loolu dañuy japp ne sax ñoom dañoo yaafuf wala dañoo yeex euh, boo yeexee sax ñu japp ne seen i wayjur ñoom it seen mbir demewut noonu waaye fekk na jamono ngi daw vitesse bu mag waaw nun ñu fekk ca lee démb aslëf fekkee lii xam nañ ne yëf yi soppiku na bu mettee metti waaw kon nag nañ fexe it ba wayjur yooyu doomi sëriñ Tuubaa lañ de mënee su leen a yor roy ba dab leen waaye nag nañ fexe ba roy leen ci ngor ak jom waaw ak jikko yiñ daan doxe ndax ñoom luñ masaan am daanañu ko doyloo luñ mës amit amit daanañu ko muñ luñ mës a ñàkk daanañu ko muñ waaw ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxe eh, nekk eh, ab jullit bu ko xeewal dikkalee dafa war a sant yàlla bu ko natt dabe na muñ mbir mi mi ngi ci digënté sant ak muñ waaw ñoom nak loolu lañ doon dundu di ko jàngale am luñu ñak ñom aduna àdduna yóbbulu leen dara aduna àdduna jàkkaarloog ñom am jafe-jafe waye ñom amuñu jafe-jafe addu ndax li aduna gëna bëgg moko ko ku koy dàq di xëcc ci ay bëgg-bëggam ak di jambat la nga amagul ak di ko ak a daw di ko wuti ñom loolu mësu dal ñom lu mëna doon ci aduna dañ ci and akuk dal ak muñ di jaamu yalla di def lañ wara def lu ñu sabablu tam dagan ci ab nak, nag danañ ko sabablu waye duñ ci ñaaw mukk waaw duñ ci wane yit ak bëgg go xamne day melni mënuñu ko ñak waaw xam nga fimne li xew moy gis ndaw lo xamne ne amna nangam mënuñu mënuma ko ñak nangam nangam te mom bayiwul xel ne amna lu ko waron ndax mi ngi ci wala jëm na ci dara ndax fi ne ndaw yu bari tay li li donon seen ndono rek ak lu xew euh, ndaw la ko jik moy jang te jup koy faral di wax ne ndaw bu jangé jup bi ci ëpp solo ku ko wër te yilif du ko yilif ku jog rek du la yilif <laughs> waaw te lolu rek doyna seuk bo jangé ba paré djub ku lo wurté te dula yelif du ku jóg rek yelif la té bobu rek jar na ko ñoom nag dañoo taxawoon foo xam ne euh, seen sàmm seen ngor ak seen diiné ndax ngor ak da fay lu fort ci nit kenn waru ko foyé kenn waru ko joxit ku koy foyé lu né nak man nga ko ñak waye sa ngor ak sa diiné nang ko teyel sa bop samal ko sa bop ñom nak mësoo leena gis mukk mukk ñu am luñu manké li ci aduna wala nga yaakar ne lii bëgg nañ ko ci aduna bañ feeñal ko ci seen kanam wala ñu jambat ko nit diko ko dégg mësuñu koo xalaat mësuñu ko xalaat ndax li ñu xam moy euh, lepp lu dagan ci julit rek euh, loola luñ ci war jëfëndiko rek man na leena man na aksi ci ñom te duñ ci sonu nga li ngay jog di gatandu ci da nga xawa yakamte rek waye bo gat bo togo nit tam wara ñew ñëw kenn mënu ko galankor waaw li am solo moy nek ci yoon wi nga war nek waaw ndax wax nañ ne serigne touba daf daan wax ne nek leen ci li leen war bu ngeen nekké ci li leen war liñ leen lul bu ci seen yoon nek kon nga bàyyi fi nag yow li la war dem di xëcc ji liñ la warlul ndax jot gi dana yomb mu ngoog ndax fi mu nekk nii mu ngi mel ne nit ku doon liggéey weer de mu bëgg ñu fay ko waaw léegi nag nga bëgg fay ko weer wi te liggéeyoo loolu du yomb waaw yaa ngi xëcc loo xam ne tey luñ la warlul la waaye nag liñ la warlul danga war a jiital li la war yow nga ne ci lee moom bul ko lijjanti. day ñëw bu fekkee yaa ngi ci li la war boo ko wàccee nag di xëcc ji liñ la warlu jafe-jafe lay indi loolu nag moo sonal ñu bari waaye fi mu nekk nii bu fekkonte ne xool nañ mag ñi liñ daan jàngale ak fiñ daan dox ñu jéem caa jaar teg ca suñu tànk jafe-jafe yu bari du demee noonu yërmande ji moom la feese dell dell boo ko miinut woon sax mën ngaa gis xar kanamam nii rek xaw koo ragal waaye fekk na xale bi toll nii bu ko téyee sax bay kaf ak moom ak kii dana la wóor ne lii bëriwul sax ñoo xam ne danañ ko def am na ñooñ xalaat ko def sax ak seeni doom waaw te moom loolu lépp ñeme loola boppam la ci jublu waaw ba ci boo doon jàng sax am baat boo xam ne bii da ko koo waxee noo xam ne da koo reeloo baat booba da cay topp di la ko fàttaleek di la ci ree léeg-léeg mu woo la mu ñëw mu ne la waxal ma baat sàngam <laughs> waaw waaw yow loolu la waaw waaw yooyu la daan def bu fekkee doon nga tari bis wax baat boo xam ne reeloo a ko wala dara da la koy fàttali fu mu toll sax dalay lay woo di la ci jaarloowaat ngir loolu lépp xeetu ñeme loola boppam waaye yooyu nit ñi wax moom comme li bimu bindee téeréem boobu yooyu yëpp yooyu yëpp dëgg rek bëgg lu tegu ci dëgg ak lislaam lo rek la di ñi nga xamne nak nag euh, daanaka ci safan ba lañ jaar ñom lolu moog jamono and fuñ tollu dañuy xatal mbir euh, ba pare japp ne ki diinem daf ko téngal dafa le fekk na demewul non laaye bir nit ñi mo sababon lolu te tay bo sété bari na ño xamne ci terem bobu ñi ci bare bari ñi ci jariñu ño xamne sax duñu ay murit ci yenen yoon lañu bok ta tay ci lañuy gaganti ko ci seen wàllu diine waaw léegi boo ko xoolee li ci ëpp ci ñi ciy gàggantikoo sax bokkuñu ci yoonu murit mu euh, waaye bu jëkk ba muy door a génn am na ñoo xam ne dafa tàngoon ci ñoom waaye nag moom it mu bëgg leen a xamal ne euh, lii mooy li lislaam santaane te li lislaam santaane mooy li Sëriñ Tuubaa santaane rek fii mu nekk nii euh, yéen ñi jàng téere yi sëriñ bi yëpp gis ngeen lim ci wax ci wàllu jaamu yàlla geeg yëpp ak am na ñoo xam ne buñ jógee ni ñu koy woyofale moom nag loolu la doon bañ waaw loolu la doon bañ ba tax na loolu liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy liggéey la ci lislaam liggéey bu rëy boo xam ne yàlla rek ko mën a fay yàlla na ñu ko yàlla fayal. man it sellal gi tax boo boo xoolee téere yi taalif ci bari. turam doo gis. déedéet. boo ne ne moom maa ko def ak. déedéet déedéet loolu lépp sellal rek la ci jublu. sellal la ci jublu ak li ko amal solo mooy xam-xam bi mu joxe ko waaw xam-xam bi bu ko xasee joxe rek noppi na ci loolu waaw jaamoo ko yàlla ndax leneen lu bare bari nit ñaa ngi koy def dañ ciy bëgg daraja wala ñu ciy bëgg leneen ñoom weesu woon nañ foofu lépp lu ñu def seen digg ak seen borom rek te foofu la mbir mi nekk ndax leneen lu yàlla moom rek boo ko ci xañee dara moom day taxaw fële di la seetaan mom yalla li ci dess lepp soxlaatu ko ndegam lim ci am mom xagn nga ko ko hmm. moom li ci dess motax ñom seen lepp nak yalla rek hmm. lañ ko daan fétalé mel lim lim doon xat-xat ak lim doon ñak ñak jot hmm. ci njàngale meeg tarbiye ak saytu gi teewul sam mu ko ko samon la gu metti sax amoon ko am nit ko amon la ci fan yépp ba ci masan geje a gis sax dan nemmi ku ba xam ci lo nek wala di la laaj di gëstu lu bare bare daal daana ko taxawe nga la ma benn kilifa bu ma bokkal ci jumaa ji ci sëti seigne touba yi eh, bi julé julee julé ñu ba noppi mooy laaj naan ma xara li ngay li ngay génn bari ma ne ko ah eh, ndakaaru de lema ma am juroom yaat yuma ma fa demul mu ne ma ah ne ko ah xam naa li ci ëpp daal bu ma mënta ñàkk damay yónnee eh, waaye sama génn bariwul léegi nag loolu moom yàlla dogal na am na ci loolu mën naa ne rek ci moom la jóge ci baatina mm-hmm. ci sëriñ Sonia bi ndax man bitim réew mm-hmm. at ma ma fa tukkee booba war naa mat ñeent fukki at ak benn ci ren 1982 mm-hmm. la woon bi ma tukkee dem France ba ñëw mu mel ne daal daf koo xam ndax ay baraada yu ma ko indaalee noonu ay bagages yu sew di ko ko siyaare ma ñëwee dama nuyo ba tok jàmmandi tout rek mo ne ma ah wa yow ba bokku go ci gone yi gënd ke wëndeelu hmm mané ko ah mo ne damay doore ñew de mo ne ma ana barab bo dem ma ko france la dem mo ne ma ah waa ji bari nga solo di réew yi nasaraan yoy lo ci doon wuti hmm mané ko ah moo tax nag ma bëgg nga ñaanal mo mané ko moo tax ma bëgg nga ñaanal ma ba ma bañati fa am soxla mo ne ma ah de lu yomb suñu borom la daal di mooñ ma dal di tàllal samay loxo mu ñaanal ma mën na la ne bama fa joggé ci la mujjé amé passeport fi may waxé yow té loolu boba ak légui boko sété mat na ñeen fukki at ak ben ci rek loolu ma gis né kon it na ci ndax man yalla sutural na ma dal ba duma namu fenn duma namu fenn dal té lég lég sax da ngay bëgg am yéné dem fo xamné fi sax dem gi warna la waaye dangay mel ni ku xaw a tiit ci dem gi sax da ngay mel ne koo xam ne mm-hmm. am na lu la tënk mm-hmm. ba da ngay tànn sax mm-hmm. yabal ay ndaw ñoo lay gënal loolu nag réccuñ ci dara sant nañ ci bu baax a baax a baax ndax dama naan leen toujours nun li ñu waroon tey ñu fekk ñi ci biir daara yi alxuraan ju xumb ñu wër ñu muy bind ay allo ak di déglu ñuy tari seeni nafar ma ne leen ku dem ba àdduna su ñàkk solo si bëgg a dox sa digg ak loolu wutal dara wut say kat wer wu de nga am lo len warlu ndax fofu la jamono toll nga am lo len warlu man de sama dara jema yor mu nek nga dongo bu ci nek dama nan len lima roy won ci serigne sooy bu moom laa doxal fi fasna yene ku fi indi sa dom doo fi indi lu muy lekk doo fi indi lu muy naan bu woppee maa koy faj bu xotti yëre jotee maa koy xotti. waaw da daan wax ne muuraake moom. day naqaril am xel. ci koy jàng. moo tax mus sa nangu. ku ko fa way juróom di indi. ñaare léeg-léeg da daan wax ne nañ koy yónnee donga ya ca tool ya. dongay tërbiye yi wala yooyu. Mm-hmm. waaye daal ne xanaa ñoom dañoo xamul ne muuraake day naqarilum xel. mu ngoog du bàyyi dara du bàyyi dara te euh, li ci yéeme woon it lu mbooloo mi bari bari bari euh, doo xam daal loolu mbirum baatin la ndax euh, ku ci joggi tànk boo xam ne bii kooko joggi na ko ci foo xam ne dañ koo maasale dafa amoon nag garabu màngo goo xam ne dafa xawoon a meññ lool ne ca wana wa léeg-léeg nag sama bokki mbàkke mbàkke yi di fa jaar waaye bu ko maasale loo nii suuf gi ba maasale ko ba maase ñaare ku fa tànkam joggi bu ñëwee danaan woo leen ma diw waaw ta- ta- tànk bii de diwa <laughs> waaw loolu moom xam nga meneen meneen mbir rax na ci waaw lu kii la ci xam gum xam nit mm-hmm. ak kon nga yëg na yow bi nga duggee loxo bi yemul ci njàngalam kese way mi ngi lay jangat yow ci sa di jangat sa ak saw melok. waaw lolou lay def lolou nak euh, menen bir la lu bare bari da ko daan fuglu te te te loolu liit warees na ko roy bo xasse jabote mbolo rek te ñuy man di dugg fu ne te do ko yëg euh, war nga leen di fuglu bu metti metti ngir maanaat di ba lu ñuy dox wala lu ñuy sacc diko neub diko def nga man koy xam ba bo xamul lépp leg leg nga fokk ci dara te bo yagge def gëstu bobu rek da dana am lo tombel waaw lu ge ma ngi wax ne mom xamna caméra surveillance yi am mom bu doon jamono bobu ah. bu doon jamono boobu moom dana ci doyal ah, waaw ndax moom waaw da daan taxaw ci penku jakka ji da daan taxaw ci penku jakka ji hmm. amna jeen wu nekkon fofu ci bobu ab senga fi nekk waaye buy taxaw ci wetu jën yi sax di yër di xool li xew ci pénc bi day dindi sax kaala gi waaw ndax boo tolloo fële seen weexaay wi yooyu lay bañ waaye ku jaar fële wala nga doon làqutu bu ne la suuc rek si day <laughs> faaw nga <laughs> waaw dootoo mën a jéggi benn jéego <laughs> waaw xam nga loolu euh, daf daf doon xam nit daal xam nit mm. dana xam nitit nag ba mm. bu buñ ko bëggoon a tuumaal ci dara daanaka xaw na ko mën a weddi ndax xam gum xam nit ci loolu waaw waaw mbir moom bu yëngoo rek daanaka xaw naa mën a xam ña ca bokk ak ña ca bokkut loolu nag moom taxawaayam la ak ak itteel gum ko itteeloon daal. day mel ne itam doon wax ci ne njabootu Sëñ Tuubaa gépp dañ ko nanguloon li mu nekk. moom day loolu da cee am xëy na am na ñum ci magoon am na ñi ko ñi ko ci magoon bari na waaye ñoom ñëpp it dañ ko daan wax ne rek. yow dal nun ñoo la war di fekk si waye yow waro waro jog di fekk kenn lool lañ ko nanguloon bu wéré wéré wér waye li ci gënoon a yéme it ñaari ku fa saan bëgg da ngay dakk bis bu mu jàngalé bis niki bis ni wala nga xamné da dana la wër ne do ko fekk ci waktu mi ndax bu dé waxtu woom ñu bari bëgguñ ko wona yaqal limay def loolu nak ñom ñu nangul koko ba nga Euh, daal yi féexaloon nañ ko ci loolu ndax moom it fi mu leen féete woon dafa diis waaw ndax euh, fab sa njaboot euh, jàngal leen yar leen te te doo ci am dara looy ñaaw njort sa xel dal ci loolu dafa yombul waaw léegi nag loolu mu taxe woon ko bu mu baax a baax te booba it fa mu koy defee jegewut ak lenn lu ko ko yàqal bokkut ak comme nii dëkk bi demee léegi ndax booba digganteem ak jumaa ji rek bari na kër yoo xam ne boobu jegewu fi am waaw nga xam ne da ngay mel ni kuy génnub dëkk waaw ndax booba kër sëñ Abdou Lahad gi eh, booba diggante kër sëñ Alaaji Baara ak jumaa ji terrain vide la woon dara nekk fi woon booba benn gaaraasu Mbàkke Tuubaa yi ñoo nekk fii ci koñu kër sëñ Abdou Lahad bi ak Dakar nekk fi nga xam ne fa la oto yi daan gaare eh, léegi mm, loolu nga xam ne jamono ji daal soppiku na lu bare bare jamono joju nak nga xamne ku ci yar nit jangal ko ci def lip, te fang koy defé it señ bi mu defare ko no xamne bo bo seng keur gi rek dafa gudd gudd ba neexute yek sax ken mën ko waaw xamne mom man nga fa nekkit lu yag yag surtout ku fay doore ñew mom dal di nekk di bari ay koré ki tabaski yoy mom duñ la ko may il faut nga yag fa ba ag fenn fi ñaari door tambali lool ndax dañuy bañ nga dem sa xel di wat ak di faaw nga jàng ba njàng mi xaw a sori daal. mel na loolu loolu lépp itam dàqante kay moom lu wér a wér la moom. moom kay moom loolu moom. da ko daan wane ci lépp sax. waaw te boo xoolee rek eh, yaa ngi koy xame ci sëti sëñ Tuubaa yooyu mu yore woon. di leen jàngal. Eh, jox gim leen doon jox cër. Mm. Eh, fonkeel googu da ko delloo ci sëñ Tuubaa ji. Mm. waaw ndax. kenn ku ci ne ma lay xoole sa wayjur ak lam séq ak moom mm. ak jëmmi sëriñ Tuubaa ji waaw liñ ne euh, sëriñ Abdou Lahad mas na ko wax day mm. ne ki ma gën a mën a bàyyi xel day mm. mooy sëtu sëriñ Tuubaa boo xam ne wóor na ma ne mi ngi ci ak njub waaw kooku de moom faaw ma bàyyi ko xel waaw nga xam ne ñoom kon njub gi lu leen ñor la ndax xam nañ ne moo la war ndax leneen lu ñu la séen rek loola euh, yaa ngi yàqal sa bopp ne sëriñ bi kenn mënu koo yàqal waaye yaa ngi yàqal sa bopp te ñoom ñale bu ñu sañoon euh, loola du ca am waaw ñoom ñëpp ay référence lañ war a doon moo taxoon nag moom bu dee daal yoonu murit wii sëriñ sony bu liggéey na ci liggéey boo xam ne yàlla rek moo ko mën a fay kon yàlla nañu ko yàlla fayal ndax euh, moom day bari na fi ñoo xam ne tey mën nañoo représenter dara ci yoon wi lu mu tuuti tuuti ci jaar guñ jaar ci moom la loola mën a amee kon dafa liggéey ci yoonu murit ci avenir bi da cee liggéey liggéey bu rëy rëy rëy bu baax boo xam ne bii tey man nga ne bu bu amul ci taxawaayam ca jamono yooyu kon nëgëni kon dara du ko jar waaye nag taxaw na ci taxawaay bu rëy liggéey ci liggéey bu rëy rëy boo xam ne eh, loole mën naa jur lu nekk waaw ndax fii mu ne mujj na sax ginnaaw bi ñu baree bari dégg lu mel noonu ak di gis résultat yi tax ñuy dabaatal seeni njaboot di leen fa yóbbu te amaana sax ci yeneen daara lañ nekkoon waaw loolu sax am na ci ñooñ noonu lañ ko mujj dee ko defee ba tax na ñu bare bari da nga wax ñoom ñu ne la jaar nañ fa loolu euh, loolu loolu moo ko sabab waaye moom daal ba nun de ba ñuy gongi ko moom dëgg nga xam ne bëccëg bu jot li ngeen di gise moo ëpp li ngeen gisewut boobu de xam nañ ne def na ci nit lu nekk ndax lu ca nekk da ca jàngale te njàngale mi ëpp solo mooy bi ngay jëf ñuy gis waaw ma goog léegi moom loolu mooy njàngale bi ci ëpp solo ndax loo xam ne lii fi muy tàmbalee tàggat bi bu waxtu julli jotee mu bëgg ñëpp dem jàpp ku mën a nodd nga dem noddi ci jàkk ji door a dem julli ji loolu lépp ci formation bi la bokk da ngay jàpp dem julli ji ci ëpp dañuy nodd waaw xam nga loolu bu yàggee ci ndaw lu tuuti nga tàggat ko ci day mujj loolu làgg ci ay cëram loolu da cee liggéey liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne bii eh, kenn xamul lu mu toll waaw fi ne boo xoolee ña fa jaar ci ay loxoom ci jamono yooyu moo xam ña nekkoon ca dongay laxasaa yàlla mooy xam ñu mën a doon fu ñu fi génn rek xaw na ñoom mat royukaay ña ñuy fekk foofa te loolu yàlla ak moom rek moo ko def waaw loolu nag wax dëgg yàlla ñun sant nañ ci yàlla bu baax sant ko ci ci loo xam ne lii waxtu wu nekk duñ ko mën a fàtte wenn waxtu waaw ndax euh, waxtu wu nekk daal da ci am yu bare bari sax diis ko mën a wax ci ay rajo ki télévision waaye mbiram moom duñ ko fàtte duñ ko fàtte ci wenn waxtu ñuy sant bu baax nag sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mii ko fi nekkal yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér ngeen yàgg koo taxawee ci anam gi ngeen koy taxaw yéen itam ndax ndonali yéen yéen a ko yor kon nag jàpp ko bu baax te gëstu ko te taxaw ci mooy li ci am solo ndax damay faral di wax ne ña nga xam ne jàppuñu ci lenn lu dëgër ñu benn taarix bu wér ndegem ñooy jéem a yëkkati seen mbir ak di ko yëkkati ca kaw sàkkaa nag ñi am lu ko mate sëkk waaw waaw am lu ko mate sëkk te jamono bi toll na foo xam ne ñi ñi amul benn taarix bu wér sax ñooy jéem a former dara di ko wane ta fekk na ka amul cëslaay lu deugar waaw legi nak yi nga xamne nak amna luñu japp mom ñoñu gëna xootal seenu gëstu ak gën ko mëna wané loolu mom moy njariñ li te ñeneen danañ ci mëna a jariñ kon ñi ngi ñaan yalla fay leen ci lu kawé njort ñu téwé ko ay déwéni déwén di nuyu bu baax serigne Cheikh ak rakam yi and ak mom yépp euh tabarakallah ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaan yalla ñu yagg taxawé kër gi ndax sëriñ soñ bi moom lu ko waaye di defal rek euh, na tàmbalee ci alxuraan yam ci alxuraan loolu daal mooy bëgg-bëggam waaw bari na loo xam ne lii nag moom mm, moom la ci ëpp solo daal buñ ko tuddalee loolu loolu moom xolam sedd na ca guy ndax loolu moo doonoon bëggam moo doonoon jubloom te ku ko xamit ci loolu nga ko xam dafa am jëmm yàlla jëmm yoo xam ne nag ay nit yàlla yoo xam ne ñoom li leen yàllay baaxe mooy euh, maanaa àdduna ci boppam moom mën na leen a soxlaal waaye moom àdduna ñoom duñ soxlaal adduna dara waaw ñoom fi ne àdduna mënu leen yóbbul dara ci bis bu mu leen mës a rëbb jàpp leen ci dara waaw adduna kay xanaa day rëbb sooy waaye ñoom googu wet moom liibar nañ ci waaw loolu nag lu am solo la taxawaay bu am am solo la moo tax te la ci jiitu moom mooy nit ki nay sabablu tey jaamu yàlla nango liggey koo ndax li seigne bi waxoon ci jang ak jangale liggey ak jamu yalla bim koy leral dafa wax ne jang mi tax ma di len ci soññ ku ci jang ku ne da nga sore ak bayima yi ab taxaway ku ci jangale alquran ku ne it da nga am tuyaba ju reey ndax khayrukum man taallama alquran wa allamahu dal ni liggey bi li tax ma di len ci soññ ku ci liggey day tax nga manal sa bop mu ne sa bop nak ku manal sa bop ken dula sañal xam nga ku mënalut boppam di wut fuñ ko manale ka koy manal bu yàggee mu sañal ko te ki lay sañal nag fu ko neex la lay jëmee <laughs> doo am liberté mu waaw moo tax li ëpp solo ci ndaw yoonu murit luñ gën a mën a am liberté moo gën liberté moom na la gënal ay milliards waaw boo amul liberté ak ku la mën a jur foo mën a bokk loo mën a am takk nañ buum ci sa baat ba pare geesu mom doto ko man mom koy fu ngeen ma jeme rek ngay wax ndegem ñeme ko ko kon liberté bi moy li am solo waaw mom nak sëñ bi da ci insisté won mo ne bo de liggey da nga manal sa bop da ku manal sa bop ken du la sañal mu ne jaamu yalla gi li tax ma di len ci soñu day tax nga rafet njort ci sa keuruk ëllëg muy aljanna rafet njort la wax kon ko kon wedd na it ñi nga xamne yenn murid yi daan wax du ma dugg saxaar di yenu sama bagage kon sëñ bi weddi na ko foofu waaw ndax wax na ko sax ci bayitam yi mu ne yaa mutaalliquuna koonoo muminin wa muslimina taatan wa muhsinin dem na bay wax ne safiha ma yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu la yuqbala waaw kon foofu daal la mbir mi ne yoonu murit moom ku ci bañ a wala ngay hmm. euh ki ne ci sa kanam na nek njàccaar lu wir hmm. nga ci njàccaar top ci ginnaaw waye bu nga doon njàccaar waye bu doone silma nga doon njàccaar musiba diggan <laughs> qul hal yastawi al ama wal basir hmm. kon nak euh, mbir mi seigne bu dal mom rerut réeralut kenn nit la daan defar rek koo xam ne day bëgg mu nite ne moom wax baa ngoog te loolu defar na ci mbooloo mu dul jeex kon yàlla ñu yàlla boole dimbali te jéggal ñu te yàlla bàyyi fi njaboot gi bàyyi leen fi te suñ borom nangul leen bépp liggéey bu ngeen ciy def suñ boroom nangu ko bi barakati xaadimu rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullah